mu ne ndax jarul leen leeral dara ci Sëriñ Tuubaa ndax xam ngeen fi Sëriñ Tuubaa mu ne xam ngeen fi Sëriñ Tuubaa toll ak boromam mu ne xasida googu mu ne doy na sëkk mu ne suñu diggante ngeen mu ne kon seen taxawaay bii ak jëf jure ji te sell mu ne yëg nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax mu ne da ngeen xam ne mu ne war ma ji ko war. suñ digganteeg yéen. daan nañ ko ànd ak yéen. te lépp. te yàlla rek ay tax. mu ne jëf ji lépp. dañ koy gën a sellal. te yàlla rek a tax. suñ tubaab bàyyi nañu fi lépp. mu ne kon na seen xel daal bu baax. dana ñaan te yàlla tax. suñ kéem kàttan. mu ne la ci am solo. mu a dogalu sama borom bi. mu a jàmm bu ne. suñ borom noppi na ci yow. la ca dolli ko. jàmm bi yittewoo yàlla mu ne jàmm bi des moom yoonu kenn nekku ci. suñ borom dara jaaxalu ko. te jërëjëf kon jërëjëf. mu ne mi ngi leen di gën a tàllal ñaari loxo. ànd ak yéen ah, te yàlla tax ngir war ma jëm. yonent yàlla Aysa mu ne ndax yonent yàlla Aysa mu ne moom moom ak moom ak yonent yàlla Muhammad yemale képp ni ñu ko gëmee woon ni ñu ko gëmee woon moom nag lañ gëmee yonent bi mu ne ko war ma jooju daañu ko sédd bu baax boole ko ànd ko yéen baax doon ko sàmmante ak yéen baax jërë ngeen jëf yéen a yitte ji yitte ji mën na sëkk gannaaw yàlla rek a tax xel mën na cee dal jërë ngeen jëf